parce que boo ne da nga naan da ngay da ngay aaye clandestin te say bateau maritime say militaire matuñu si biir géej gi amuñu si géej gi gaal yi dañuy dem gaal kenn munu leen teree dem loolu moom muy neex tey muy naq di suba gaal yi kenn mënu leen téye muy feneen ak feneen tefes yëpp foo dem gaala nga fay tëmb buñ ko espérer fii ci sumb rek buñ ko espérer euh, fële duñ ko espérer nañu espérer toutes les tefes toutes les plages on y a des ba pirogues qui se débarquent là-bas pour partir en amul fii muy Mauritanie fépp fépp ci yem